jërë ngeen jëf bokk internet ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey jii di mercredi 28 août 2024 ñu fas yéene ñëw rek ci affaire double meurtre bi nga xamante ni dafa concer euh, concerné ki nga xamante ni moom mooy Aziz Dabala ak Wally ñu daal di ñàkkoon seen bakken nag nit ki semaine ba ñu génn démb ñëwoon nañu tribunal bu Dakar daal di xaar ki nga xamante ni moom mooy Nabou Leye ak ñi ñu jotoon a jàpp muy euh, sept personnes lañ au total tey nag bi ñu ñëw bi ñu bi daal di nañ leen di placer sous mandat de dépôt jamono ji ñuy wax ak yéen ndaxte li nga ni moom moo concerné affaire meurtre bi daal di leen yóbbuwaat ñu amaat retour de parquet tey ni la ñu di jot xibaar ne sous placé nañ leen sous mandat de ni nag moom mooy Nabou Leye jamono ji ñuy wax ak yéen daal di nañu koy transféré fële ca camp pénal mooy prison bu jigéen ñi ñeneen ñi nga xamante ñoom ñooy les six personnes yi nga xamante ay góor lañu daal di nañ leen di yóbbu fële nga xamante ne moom mooy rëbës en attendant nag ñuy xam exactement fan la wanante di mujjee ki gëtam ndaxte jàppoon nañ ne rek ki nga xamante ni moom mooy Nabou Leye a surprendre nit ñi par rapport ak réaction ni moom mooy de dépôt yi ñu leen placé mu mel ne nag mbir mi euh, xëy na bu ñu yeggee ci li nga xamante ni moom mooy procès ba ci lay gën a mën a leer ndaxte meurtre la boo xamante ni nii li ci liyee bari na moo tax rek dañuy bàyyi yoon def daal di def liggéeyam su